mbokki internet yi nuyu nañ leen dal leen nag jàmm ci seen émission wax sa xalaat euh, tey nag euh, li waral ñu daal di yéex a tàmbali wax sa xalaat bi mooy actualité bi nga xam te euh, daf ñoo dab ci journée bi ñeel procès Lamine Diack tey li nga xam te moo di verdict bi moom la ñu fas yéene waxtaanee ci biir émission bi wax sa xalaat Mouhamed Lamine Diop nuyu naa la. maa ngi lay fay na fi di nuyu internet yi comme ni ko waxee donc dañu reculer li nga xamante ne nii mooy heure wax sa xalaat bi pour waxtaanee un plateau spécial par rapport ak verdict bi nga xamante ni amna sur le, euh, le procès Lamine Diack euh, ancien président de I2AF tay lolou lañuy ñuy 78 150 74 72 78 150 74 72 ngeen wote daal di ñuy jox euh, seen xalaat ci li nga xamante kon modi verdict bu Lamine Diack bi 4 ans yi nga xamante def nañ ko deux ans ferme Lamine Diack war ko daal def on rappelle que ni procès bi mi ngi démarré depuis en euh, novembre 2015 que mhm. euh, Lamine Diack est accusé nous accusé euh, de corruption sur fond de dopage russe mhm. loolu lañ koy accusé balaa elle ñëw Lamine peut-être ci détail yu li nga xamante verdict di Canal Plus Momon accompagne émission bi Canal Plus est en promo jusqu'à la fin du mois décodeur à partir de 1000 francs ngeen jënd vous abonné wu mën a disposer ci chaîne yi 5 championnat championnats yu euh, ci euh, qualité HD euh, tay itam ci lañuy ñuy li nga xam té modi lo yi ñi jox suñu internet yi donc woté len bu gaaw ñu tànn benn ñaar ba ñett daal di len jox lo bi mhm. Mhm. voilà donc comme ni ko annoncé donc le procès Lamine Diack donc mhm. depuis 2015 mi ko té fofu ci France donc tay le verdict bi génn 32e deuxième chambre de correction bu bu bu Paris ñoom ñoo donc au donc euh, condamné à 4 ans de prison, donc dont 2 ans ferme, 2 ans sursis, mhm. avec euh, une amende de 500 000 euros qui, est évaluée en CFA une somme de 329 millions de francs CFA, donc euh, tout mhm. comme son fils Massata Diak aussi qui est condamné à 5 ans de prison avec 1 million d'euros, mhm. amende 1 million d'euros, avec d'autres personnes, terminé, ni un dossier. Maintenant, nous avons l'internaudit, nous avons l'internaudit, nous avons un nous avons l'internaudit, que ah, que ñu dugg aussi ci détail yu euh, li nga ni procès parce que bo ba légui Sport ci prononcer wu. Mhm. émission parce que xaar ci mhm, voilà mais d'ombre ni euh, procès bi yoo sénégalais en tout cas comprendre ko wala sénégalais parce que dañuy xëy suba presse étrangère bi ñoom ñoo ci gën a communiquer. Mhm. donc parce que à l'étranger la xewee benn loolu dafa nekk déjà benn handicap pour Lamine Diack mooy le fait que procès bi xewee à l'étranger benn. Mhm. deuxième bi mooy nekk presse étrangère bi ñoom ñoo ci gën a communiquer. à mhm. quelle fin. ñan ñoo ci njëkk communiquer à quelle fin. tey biñ ci communiqué lan lañ ci jublu woon à quelle fin loolu noonu yëpp dafa bokk loo xamante ne ay zone d'ombre la yoo xam ne mi ngi woon ci procès bi loo xam ne les Sénégalais ne le maîtrisaient pas effectivement tay euh, euh, verdict bi génn na mën nañoo discuter amplement ci li nga xamante mhm. euh, moom mooy moom mooy moom mooy verdict bi euh, discuter amplement ci li nga xamante kon euh, moom mooy moom mooy mbir mi Lamine Diack quand on parle de lui ñëpp xàmmee nañ xar kanamam ci li nga xamante moo di sport au Sénégal ndax dafa am histoire ak li nga xamante moo di sport au Sénégal tey mhm. nekk na koo xamante sargal ko fii Sénégal du benn yoon mhm. du ñaari yoon du ñetti yoon tey li nga xam te euh, moom moo ko moom moo ko dal muy verdict bii nga te mu ngi ko dégg et bien sûr euh, ci kanam dinañ dinañ am réaction wu avocat am par rapport ak euh, li ñuy préparé ak ak loolu mhm. mais dafa nekk loo xamante Lamine ñëpp dañ koy nakarlu ci ñu am koo xamante autorité la ci monde du sport bi mais itam Euh, monde monde monde sportif sénégalais parce que Lamine Dia ku ko xam yàgg ko xam ci athlétisme mhm. euh, nekkoon na fi athlète nekkoon na fi sax footballeur mhm. du temps euh, de foyer France né na né na fi football nekkoon na fi directeur technique équipe nationale du Sénégal député mhm. ancien maire de Dakar aussi lolu nek yenen poste yo xam te mom la mom la occupé au niveau de la vie politique mais nek ko xamanté tay jii nii ci ci ci athlétisme tay du du Sénégal c'est c'est un sujet boo xamante ça touche plusieurs pays parce que mhm. Lamine Diack depuis 74 mi ngi nekk ci li nga xamante moo di moo comité olympique bi mhm. tey eh, li ñu koy accuser ni corruption la euh, fonds de dopage ci ay athlètes euh, russes qui ont dañoo waxoon partage dañoo waroon euh, participer ci jeux olympiques bi mhm. mu nekk coow loo xamante li ci gën metti mooy novembre 2015 yow nga tere nit ki mu voyager confisquer passeport am téye ko foofu noonu ba 2020 nga doga a verdict bi ni euh, mhm. ci lo xamanté dang koy continuer diko ko téye mhm. lolo gëna metti foog ci verdict bi mhm. lolo ci gëna metti donc tay euh, le fait que ñu téy ko cinq pendant 5 ans fofu non ba verdict bi pour nous annoncer que ne fay fait 2 ans de prison ferme à 87 ans donc Lamine Diak, il faut que nous préciser âge 87 ans 87 ans donc voilà à 87 ans mu wara teud 2 deux ans ferme donc euh, je crois est-ce que amna loi bo xamné ne mënul permettre ko am 87 ans mu bañ teud yakarna mhm. amna ci ay manam ci côté bon du ma juriste mais amna dal daal euh, en tout cas âge bo xamné normalement ci yene façon crime euh, à 80 yenn âge à 73 ans lañu ñuy limité peine mhm. mais buñu ñëwé en profondeur ci mm, ci li nga xamné mom moy procès bi qu'est-ce qu'on accuse à à Lamine Diack di ni euh, mën nañu wax que né dafa am. bu ñu woo xoolee historique problème bi dafa amoon euh, ay euh, compétition en tout cas yoo xamante ne ni Angleterre daf ci postuler woon pour organiser ko. Mm-hmm. et que euh, I2AF jox ko Angleterre mu ngi ko joxoon Russie à l'époque léegi mu am coïncidence boo xamante ni dafa jaaxal ñu bëri mooy tey jii ni procès Lamine jaag bi média anglais yi niñ ci impliqué woo. Mm-hmm. niñ ci impliqué woo lan la. Mm-hmm. dañu amoon dent contre contre lui wala. de benn benn aspect deuxième aspect bi mooy et dañ ko dañ jiiñ il a retardé des sanctions il a retardé des sanctions par rapport à des athlètes russes york a maintenu soi-disant que dañu am dañu paix ou par rapport ak par rapport à cette compétition donc loolu beaucoup na ci euh, beaucoup na pas ci li nga xamante ne ni et euh, chef d'accusation mhm. mais aussi tey d'une comme ni nga annoncé 5 beaucoup na ci beaucoup na ci liñ ko mhm. affaire de corruption hein affaire de corruption bo son fils Massata euh, il est il est mêlé dedans donc mom depuis depuis lors pas dem fekkee procès parce qu'il juge que le procès est injuste il juge que le procès euh, n'est un procès équitable pour xamantene ni bu euh, c'est sûr que né parti pris amna ci niñ si fonctionnement bi mais Lamine Diack li ñuy déjà son courage mhm. on salue son courage parce que nous na koo xamante depuis 5 ans mais gérer la situation. Mhm. certains disent même est-ce que nekkul di protéger les ñi moo mu sañ taxaw dékku li nga xamante ne ni les mhm. parce qu'à un moment donné en 2015 je rappelle. Euh, mhm. par rapport à audition bu mu defoon fofu il disait que ne euh, jotoon na pour dimbali l'actuel président de la République du Sénégal Macky Sall par rapport à élection présidentielle 2012 mhm. donc mu nekkoon aspect bu nekkoon ben phrase bo xamante ni ça ça ça faisait couler beaucoup d'encre am créé woon en tout cas polémique bu reuy ci dëkk bi. Mhm. et que tey jii nii ñu gis ñu gis que né malgré malgré cela procès bi mi ngi continuer di daw et que mom mi ngi gérer la situation et que gis nañu ses avocats. Mhm. bi ñu bi verdict bi daanu li ñu ñëk wax leur leur première réaction c'est que.

waaw di wax rek euh, xol yëpp fees tey mhm. ndaxte boo fàttalikoo man jour procès bi sax woowoon naa la maa ngi woon foofu mhm. mais ñun man man boog sama xalaat laay wax du question ne nii dama ko xam ou bien xaw ma ko Lamine Diack dem naa këram du benn du ñaar fu ma dëkk ak moom soriwul mi ngi changer ma de bois man maa ngi iñi mhm. te ay famille am ñu ma ci xamante bu baax a baax mu nekk nit koo xamante ne que ni nitu kese la nit la koo xamante ne que ni boo ko jegewul doo ko xam. mais dama sentir ne li mu defal Sénégal Sénégal delloowu ko lool. Mm. sama xalaat laa wax. waaw sama xalaat laa wax. dama c'est que na fi gis nga àdduna. Mm-hmm. def lu baax dafa am solo. Mm-hmm. maa ngi wax ak yow mais billahi sama xol a fees. Mm-hmm. parce que gis nga lépp looy def. nga jublu ci lu baax am na seytaane maanaam saay-saay bu toog sa wet di yàq. Mm-hmm. dëgg jàppale bi ñu waroon a jàppale Lamine Diack. Mm-hmm. c'est pas suffi maanaam man dama gis ne ne dañ ko gën a tugal surtout média am na média wu Sénégal yoo xamante ne mais Lamine jaat li mu def. Mm-hmm. am na français boo xamante ne mi ngi fii li mu def moo gën a garaaw li Lamine Diack def. te mi ngi woon mi ngi woon FIFA. xam ngeen bu baax ki may wax. yaa ngi même euh, président de FIFA li mu def moo gën a corruption yoo xamante que ni flagrant c'est flagrant. ki règlement de compte Le... coow lu rëy mu jékki-jékki. voilà fay. Mhm. voilà mais la moo ko waral parce que ils ont ils ont un bon entourage. Mhm. Lamine Diack man damay jàpp règlement de compte le wax ji bu leen ko guddal bu leen ko gàttal. bu leen ko bu leen ko sax parce que am na ñoo xamante ne ci côté technique rek. dañuy effectivement dañuy japonais. ah corruption boo dëggee boo waxee bu bu waxu corruption bi rek ñoom côté boobu lañ koy gisee. wax ji xam nga lan la règlement de compte la. Euh, Sakho pourtant dañ naan man dama ji sax ñoom média yi ñoom euh, ñoom ñu tàmm di ci kii ñu bind corruption passive mais Sakho euh, tey yow amoo dara loola étonné ci keroog bi procès bi jeexee ñu doon ñu doon xaar verdict bi nga déggoon cour bi ni moom mi ngi doon émettre sax ay doute ci li nga xamante moom lañ ko présenté li nga xamante itam défense bi présenté na ko. Euh, mu dem ba ni moom ci ci accusation yëpp mi ngi doon émettre ay doute tey mu ñëw euh, li nga xamante moom la ñu bëggoon mu daal di koy dëggal en quelque sorte parce que mu daal ko dëggal xam nga mm. per mm. voilà moo tax ma ne la procès gis nga euh, sànq maa ngi dégg al amin mu ngi koy wax al amin xanaa nekku fa maa ngi maa ngi dégg mu ngi koy wax mm-hmm. Mm-hmm. mi ngi naan mi ngi naan mi ngi naan masataga masata dafa war masataga lan la fi wut lan la fi ut mm-hmm. procès boo xamante ni depuis ca ba ah boo nekkoon ci ci euh, ci salle ba man xam nga yàlla laa doon dégg. Mhm. ay message moo ko envoyé. mais attends est-ce que mun nañ juger nit ci ay message mhm. l'homme noir à Londres. est-ce que mun nañ juger nit ci ay ay email. Mhm. ay email email mun nañ ko mun nañ ko modifier à tout moment. ah xanaa xam moom même France fini, nii am na dégâts yooyu def même buñ la jàppee ci caméra sax mun la ñu juger ci loolu munuñ laa juger ci caméra. mais man dama ne la gis nga bu ñu tukkee ci procès bi woo expliqué man jour procès bi sama xalaat laa la wax de. Mhm. maa ngi doon yaakaar ni ak liñ fa jot a wax yëpp avocat yeeg ñëpp liñ ci a wax ba ci euh, kii nu mu tudd baar bi ñëpp liñ jotoo wax man dama yaakaaroon ne wax dëgg yàlla dañ koy bàyyi mu ñibbi. Mhm. parce que âge bi la kii doon wax euh, kii doon wax léegi léegi nu mu tudd. Al Amine 87 ans. Mhm. ba ci avocat mi wax nañ ko. kii amul lu muy soxla ci àdduna. âge am déjà war nga ci mais xoolal seen am na be ma wax la benn affaire bu gàtt. Mhm. maa ngi maa ngi yàgg ci lim ngeen jégal ma mais suñu xol a fees. Mhm. man këram laa jëm suba incha allah te xam naa parce que du wax du wax ak média sinon ma paas leen ko. Mhm. yaa ngi fi. Euh, da ngay jël mairie de Levallois. mairie de Levallois. ay millions millions la sàcc. flagrant délit mu mu jënd ci ay sato jënd ci ay kër jënd ci lu ne. mais il a son liberté. Mm-hmm. keroog ba ñuy def fête de musique bi génn na bay fekk sax ci ci fête de musique bi mm-hmm. ngi këram na euh, sant yàlla mm-hmm. l'homme noir moo metti moo moo parce que li tax mënuñoo mënuñoo mënuñoo gaaw a set fenn ñun suñu wol bopp dañoo war a jàppalante Lamine Diack amul assez maanaam waa réewum jàppale ko à cent pour cent bu ko jàppale woon delloo ko li nga xamante ne moom la àndil Sénégal wax dëgg yàlla tey ji ba ci président Macky Sall. suñu autorité aussi man dama dama sentir ne dañu xaw dañu maanaam mbir mi maanaam. mais mais dafa mel ni soxla soxla. mais ñun ñu nekkoon gis nga euh, Alamine ñun ñu nekkoon tribunal ñun ñëpp loolu lañ leen wax tribunal boo fa demee day mel ni ki xoolal benn tubaab la ñuy jugé ah. Mhm. ñi fa nekkoon nit ñu sax bëriwul. Mhm. ñu fa nekkoon ay autorité sax bëriwul. man de gisuma fa sax ambassade Sénégal gis gisuma fa benn représentant eh, bu mag boo xamante ne ki war nañ ko mën a taxaw te loolu dañ ko waroon def affaire du politique affaire u sacrifier doomu aadama la. Mm-hmm. Mm-hmm. te tubaab mm-hmm. am na loo xamante ne bu gisee mu oyof da ciy def lu ko neex. Lamine Diack wax ji bu ko guddal bu ko gàttal na fi lenn la dañ ko seetaan seetaan googu nag ah. Macky Sall loolu warul ci moom. même ñoom xalifa Sall ñi ñëpp loolu warul ci ñoom. parce que li mu def ñoom ak fi mu jaar ak ñoom ñu ñëpp xam surtout PS. Mhm. yaa ngi dégg métti nañu trop trop trop trop verdict ba mu génnee ba léegi lekk xoolal naan sax def ma ko yàlla mi métti. maasa mhm. naan sax defuma ko dafa métti quoi paa bi boo ko gisee sa xoolee jeex. Mhm. jeex. Eh, ci kanam avec ah, à son quoi métti na. Ah, à ay sëtam toog toog Sénégal dina xam. ah ça d'accord. <laughs> c'est c'est mhm. émission bi sax. ñu lay ñu ngi lay masaw bu baax ñu ngi lay masaw bu baax metti na donc euh, voilà metti. masawu di njabootam. Mhm. di masawu euh, toute ay sëtam. Mhm. ah ay doomam parce que nekk. c'est vraiment yi It inscription uh, ñun mm-hmm. moo tax wax en tout cas Lamine Diack bi nga xam ne moom lañu moom moo détourné xaalis bi mhm. wala tey ji dafa encaissé xaalisu Russie par rapport ak dopage il a été euh, passif regardant tey ci par rapport ak euh, sanctions yi nga xam ne war nañ ko def ay russe yi nga xamante ne nii dañ doon joxe xaalis pour que ñu mën a def ay compétition bu baax wala seen compétition ñu mën ko ñu ñu mën ko accepter. Mhm. Euh, ñu ànd ak euh, complicité régie euh, seetaan peut-être réaction. ñi nga xamante moom mooy moom mooy avocat yi. Mhm. voilà wala ñu xaaraat kon tuuti ci kanam pour mën a teg réaction wu avocat yi ñoom bi bi bi procès bi jeexee. Mhm. pour man tey li nga xamante moo di I2A ñoo bëgg a lancer benn message. pour ñëpp ñi nga xamante ñoom ñooy ñëwaat. ci ci ci post boobu noonu benn message boo xamante dañ ko bëgg a jaarale ci euh, euh, kii nga xamante kon euh, mooy mooy Lamine Diack je perds je sax mes mots parce xam lu tax Lamine mhm. ah li dafa nekk beneen monde boo xamante business la mhm. monde boobu noonu day mel ni ku gën a ndaw ak ku mhm. gën a mag boo si boo taxawee nga nekk ko faible bi rek ñu lekk la dafay da dafay day mel ni numbelaan. Mhm. allo. Mhm. ma ma ma ma maa ngi jégalu Alamine benn affaire laa bëgg nga fàttali ko. Mhm. bii bu fekkee xam nga histoire li nga xamante ne que ni moom mooy Jeux olympiques fan la ne fan la fan la ko Lamine Diack fekkoon ak fan la ko yóbbu. absolument c' est très important. c' est très important loolu bu ñu ko bàyyee xel rek. bu ñu jaaree gis nga ci yoon. ci yoon ci yoon. wax ji wa ñoom war nañu rus sax. di ko wax. sponsor yi bu ñu demee ba am doole ci Jeux olympiques tey ba mm-hmm. àdduna bi yëpp mm-hmm. fu ñu tëggee Jeux olympiques ñëpp di ci bàyyi xel mm-hmm. daf ci jouer rôle bu mag a mag a mag a sacrifier dundam yëpp ci ci ci ci ci kii bi ni c'est que man li may wax rek mooy li may bëgg li ma lay li may ñaan te di ko ñaanaat yàlla lii lu yàlla doon lu gën ci moom parce que bëgg na dellu trop trop trop pour gis ay sëtam absolument bëgg na te Lamine soxlawu Père Lamine soxlawul alal soxlu xam nga lu mu soxla. Mhm. xam nga nit ki boo liggéeyee am na benn moment da war a noppalu. Mhm. mais imagine toi ñu téye nit di ko lëkkal lëkkalee pendant cinq ans sa waa réew kenn yënguwul. Mhm. dara yënguwul lii bu doon naar foor nga dinañ ko ko def. du demee nii. bu doon naar laa la wax est-ce que dinañ ko ko def. bu doon américain dinañ ko ko def. ana ki yoroon ki directeur Renault bi directeur Renault anamu. directeur Renault histoire am yëg ngeen ko. no mais euh, Sakho. dafa jóge Japon waa japonais no xaaral ma yeggal rek japonais yi dañ ko téye. parce que dafa dafa maanaam dafa dafa dafa dafa déclaré ay no dafa sàcc maanaam nañ naa corruption la ci moom tamit. Mhm. mais moom fexe na ba jógee Japon génn Japon fexe ba dugg ba dugg dëkkam. Mhm. Mhm. waa dëkkam est-ce que jàpp nañ ko tëj nañ ko séedéer. loolu am na ko maanaam am na ay ponkol yu nekkoon ci gannaawam jàppale ko Sarkozy sax dégg naa loxo ma ngi ci Lamine père Lamine amul benn benn soutien au Sénégal man loolu laa gis amul man gisuma ko sentiruma ko man loolu rek ma ci métti ah. du leneen tubaab yi dañoo def li ñu bëgg ñoom mais nag ñun ñoo leen ko bàyyeel ñun ñoo leen ko oyofal mi ngi mel nga jël sa doom sacrifier ko ne ko ay aywa mi ngi noonu boo boo ko baaxee boo ko bàyyee alxamdu boo ko bàyyi du Mm-hmm. Mm-hmm. te te journaliste yi bu fekkee mm-hmm. ñoo jàppale Père Lamine nañu bàyyi di yàq di gën a yàq peram di ko gën a dugal ci loo xamante ne que ni ça n'a rien à ak lu nga xamante ne moo am li am mooy nañ ko wax te dee règlement de contre la point barre. mais mais Sakho ci règlement de contre boobu daa doom ñëw sànq ma ne est-ce que média anglais yi parce que xam nga opinion xam nga média dafay créer opinion. pouvoir média. baal ma baal ma de maa ngi lay dog

et cetera et cetera ba ci ba ci euh, euh, kii nu mu tudd ki yoroon ki yoroon euh, FIFA. Mhm. mais mais Sakho. c'est que xam nga lii ñun ñun lii daf ñoo war a servir de leçon. parce que gis nga monde bi nii lay demee monde bi lépp clan ah, la. xam nga tey jii nii. ba ci ba ci li ñuy dund corona bii nii ñu naan la ay clan la loo xamante yow xel mënu koo nangu am na fenn foo xam boo fa tollee sax da nga naan lii est-ce que man ci àdduna laa nekk léegi ñun Afrique. Hmm? ñun Afrique ñun lii ñun daf ñoo war a yee parce que man pour man. benn benn benn benn euh, Lamine Diack li ko dal nii yëpp ah euh, couleur de peau am ci la bokk. Mhm. Ah, ci la bokk le fekk mu nekk homme noir ba pare occuper yenn instance yi nii. yaa ngi mhm. dégg. métti woon na ñu bëri xanaa xam nga xam la voilà merci Nafi. Mhm. da nga may jégul c'est que sama da ngeen may fàttali loo xamante ne que dama koy dund. xam nga li tax Lamine Diack dàquñu ko bu yàgg. résultat bi. résultat yi mu andi won hein ah? mhm. mais retraité moo tax mu dem retraité presque mo taxone taxoon mu dem hein mais munoo bu renouveler wat dañ koy renouveler. et il avait désigné son successeur loolu yep loolu yep ay problème la indi woon. merci. Mhm. c'est que euh, Nafi. parce que c'est vrai mbok auditeur yi am ñu bari xawma ba xam xam nañ histoire ou bien xamuñ histoire. mais xam nga man fan la bëgg ngeen insister ji rek. Lamine fan la fekkee won Père Lamine fan la fekkee won manam Jeux olympiques bi ak fan la ko andi loolu benn la ñaareel bi mooy affaire bi mafia la boo xamante ne que ni benn clan moo jug pour xeex ak moom mhm. jéggi dayo mhm. te ñu ngi te te réussir nañ ko parce que ñun dañoo ko seetaan mhm. dañoo seetaan Père Lamine man foofu rek laa bëgg ngeen jàpp ko rek parce que boo leen fàttalee nit ñi fi nga xamante ne que Lamine fa la jëlee li nga xamante ne mooy Jeux olympiques bi ak fi mu ko àndee yaakaar naa am na journaliste yoo xamante ne débat yi ñu doon def ci Lamine Père Lamine duñ ko def loolu rek laa bëgg a dolli ci ci ci waxtaan bi mais. métti nañu trop trop ba fu ñoo wax ak yow ni mm. di wax sëriñ seeg euh, maanaam église beeg ñëpp ñu ngi leen di ñaan parce que def nañu recours. Mm. ñu dimbali ñu ñaanal ñu ah père mu mun a delluwaat ci njabootam quoi parce que lii ku doon ku mu doon sa papa du la neex. boo ko gisee franchement parler amoo benn xolal da ngay bëgg a tagg sa bopp sax jox ko. Mm-hmm. di jégalu merci Sarko. Nous donc euh, en même temps Luiso Villarte et David Mbaye que émission hors sujet parce que fait que, certainement que suivre l'émission. mais nos fidèles auditeurs et fidèles internautes nous suivre wax sa débat euh, thème si moom le football local avec le problème des joueurs donc c'est pas d'actualité actuellement tey actualité bi Lamine Diack donc y a qu'un du hors sujet parce que c'est un sénégalais nous voilà a waxtaan ci moom. Mhm. Euh, non euh, c'est une réaction. Euh, ñi nga xam te avocat yu Lamine diak tay bi ñu génnee ci li nga xam modi procès bi ba ñu jotté verdict bi ban réaction lañ am ci lool Pardon. Bon, pardon. Moi, je suis de police. Par contre, pardon. les maintenant. Allez. Voilà. Le premier qui me Voilà. Avancez, s'il vous plaît. Encore bloquez un accès, moi, je dis. Avancez, encore, encore, encore. pas Après, vous encore. Encore. encore. pas. Dernière fois. Hein. je suis C'est Alors. on Rapprochez. On va y arriver. Sur le verdict. Au moins. Alors nous prendre connaissance tout de suite la défense. Monsieur Diac, de service injuste humaine. Et injuste le tribunal a faire dans le politiquement correct. En lisant euh, cette décision, le tribunal nous a montré que il n'a fait que épouser sont entières du parquet. Aucun élément présenté par la défense n'a été les parquets ont été épousés en revue. Alors que à la fin du vous avait dit aujourd'hui nous avons un tribunal plusieurs incohérences, notamment comme on dit financement de campagne, mais en même temps on reconnaît que on n'a aucune trace on dit à une confiance que 15 dollars auraient de contrat. Et ceux qui le contrat mis en cause. Les bénéficiaires du contrat ne sont pas mis en cause. Ceux qui il n'y en a aucun qui est poursuivi dans du profondément nous trouvons que justice a la mort et non pas du droit. एक mi ngi noonu mu nekkoon euh, réaction avocat wu euh, ñi nga xam te moo di Lamine Diack bi ñu génnee ci euh, tribunal bi bi donc di jégalu ci coupure yi ci am mais en gros li mu doon expliquer que ne mooy c'est un procès boo xamante ne c'est inhumain mhm. c'est injuste et que ñoom dañuy interjeter appel mhm. et que ñoom dinañ euh, dinañ interjeter appel parce que euh, li nga xamante ne nii moom mooy verdict bi ñoom ànduñu si mhm. et que Lamine Diack ne mérite pas Euh, li nga xamante ne nii moom nañu déroulé procès bi pendant cinq ans ba pare verdict bi nga xamante ne nii mm-hmm. am na yu bëri ci ay euh, preuves yoo xamante mënoon nañ koo tenir en compte mm-hmm. wala ay considération yoo xamante mënoon nañ koo def d'autant plus que bi procès bi di jeex on rappelle que ni euh, ñoom ci seen bopp dañu waxoon que mm-hmm. am dañoo émettroon ay doute par rapport ak lépp loo xamante ci chef d'accusation yi la bokkoon donc on s'attendait peut-être ci peine bu gën bu gën euh, pas pas mu lourd en tout cas ni mais au moins aussi nous permettre comme on Lamine dit mu daal euh dellu fi nga xamante moom de dëkkam mais bu itam euh, Lamine peut-être nous jox rapidement nous xam te mooy sanction yi nga xam te moom euh, top Massata Diak parce que nous les cinq ans de prison maintien du mandat d'arrêt un million d'euros amende mais itam interdiction d'exercer dans le domaine du sport. y mhm. a na ci sanction yi nga xamante ne mhm. euh, Pape euh, c'est son mhm. fils qui ne euh, tout ce qui était commission marketing ou I2AF par rapport à la compétition yi il donc aussi une lourde sanction pour lui. donc il faut avoir aussi la confirmation par rapport à aux cinq ans de prison ferme donc xamaguñ exactement si c'est ferme. voilà sursis la wala nature nature condamnation même même même même booy am euh, même ci yenn info yii ni euh, vous allez comprendre que ni dañuy dañuy hésitant sax pour wax que ni li la parce que tellement il y a manipulation itam au niveau au niveau de l'information parce que ñi nga xamanté euh, ñom ñolay lay informer par rapport ak lolu fi nga xamante fi ngay jëlé sa source mhm. tay ji ni budul. Euh, clan bi ci bopam comme ni koy wowe clan jaat bi euh information yi nga am té tout le temps day jogé ci média français wala média anglais wala autre média yi tay jini fofu manipulation dafa egg ci dossier Lamine Diack bi. manipulation dafa egg ak euh, création d'opinion parce que comme ni ma ko waxee sànq euh, média mom moy créer opinion donc depuis le début y a une création d'opinion bo xamné xewna amna wala amna ci procès Lamine Diack bi am ben étiquette buñ ko collé étiquette nit ko comme dafa jubadi ko nañ ko éti étiquette nit koo xamante ne nii ah, dafay détourner khalis mom ak njabotam donc étiquette bob non, mom lañuy véhiculer depuis depuis des années. Mm-hmm. donc procès bi comme niko avocat bi waxé on fait pas on fait pas on prend pas la défense de Lamine Diak mais comme niko son avocat waxé ñom jëluñu en considération les mhm. preuves yi nga xam ne ñoom moom lañ ko moom la ñu apporté moom la défense bi apporté donc te loolu daf koy gàllankoor mhm. en plus de cela tey jii nii comme ni ma ko waxee sànq le simple fait que tout au début mhm. que média anglais yi di acharné wu ci moom tout au début du procès wala avant le procès même loolu bokk na ci li ko li ko gën a handicapé par rapport ak procès bi maintenant par rapport à son fils Pape euh, Massata Diack. looloo waral sax moom moom mu bañoon dem euh, wuy ji tribunal mu bañoon dem wuy ji tribunal parce que moom jàpp na ne procès bi nekkul loo xamante ne nii euh, procès bu équitable la wala procès la boo xamante ne nii tey jii nii buñ ko buñ koy dérouler en tout cas lépp dinañ ko teg ci yoon lépp dinañ ko teg ci yoon et que de bonne fois lañ koy juger mais tey ku xool nous nous des zones d'ombre comme nous début émission bi y a eu des zones d'ombre des choses qui ont été nii on ne les maîtrise pas. par mm-hmm. dans ce procès et c'est tout à fait normal suis d'accord pour en tout cas nous interjeter appel et que nous devons jusqu'au bout du combat. Mhm. Amna na lu que doon wax sànq mu ni euh, sentirul euh, soutien wu euh, population bu Sénégal wala ay autorités du Sénégal ci affaire ou la Diack bi avons am collectif sax boo n'anko pour soutenir la Diack dañ doon organiser un randonnée PDS di sensibiliser population bi di waxtaan itam ci kaawu Lamine Diack interpeller ay autorités. ci d'ailleurs ñàkk soutien bon non, ça se reflète le silence des des autorités sénégalaises. Euh, mais le silence des internautes de Viewsport aussi wow, le, <laughs> par le, rapport à l'affaire. Euh, mhm. le silence des autorités. On peut comprendre, parce que le silence des mhm. autorités sénégalaises. tey jii ni nekkul loo xamante ne quand même mënoon nañ ci ci en fait mënoon nañ ci def ben pas. Mhm. même euh, même buñ ci buñ ci buñ ko bu ñu jëlul bu ñu jëlul paaram wala ñu défendre ko mais au moins ils essayent de comprendre wala de s'imprégner du dossier. c'était quand même en fait tout à fait logique parce que Lamine Diak amna ndombal tank yu mu ci dëkk bi au delà euh, de la casquette euh, du de l'homme euh, de l' de l'ancien athlète wala ko xamanteni ni servir na Sénégal mais ne na fi maire bu Dakar. Mhm. nekkoon na fi parti politique bu mag. ça mhm. dit dire que tey ne serait-ce que pour un pour pour pour un responsable wala ko mhm. xamanteni ni amna lu mu def ci dëkk bi. waroon nañu quand même imprégné wu ci dossier bi jéem xol surtout que cité na ben parti politique fi dans ce pays. wala en tout cas audition bi nga xamné gis nañ ko en tout cas médias yi génne nañ ko nek ben parti politique le cité. Mhm. mais quand même rafetone na ñu ñu imprégné wu impliqué wu ci dossier bi djema xam les tenants et les aboutissants xam en profondeur ce qui s'est passé xam nak war nañu taxaw seen dom doomu Sénégal la Lamine Diack si c'était un Français qui qui qui est jugé au Sénégal. Mhm. mu am genre procès bu melni c'est sûr que du demee Mhm. c'est sûr que dinañ ko yóbbuwaat dëkkam. Mhm. c'est sûr et certain que si c'était un français du demee ni mhm. du mënuñu ko téy cinq ans fi si réew mi mënul nekk. mënul mënul mënul nekk euh, j'aurais bien aimé am euh, ay réaction par rapport ak ñoo xamante peut-être euh, xam nañ ko def témoignage ci moom comme ni ko Sakho de en tout cas on va lui demander à lui solennellement mu mu et nous parler en tout cas ci sérénité bi nga xamante dundee na ko woon. Euh, ci li nga un euh, procès bi parce que lui il était faux nga non il parle pas à la presse il parle non non euh, c'est depuis début procès bi seetaan nga de vidéo bu muy expliquer de di wax que ne boobu léegi kenn dégguma moom je n'ai jamais parlé je n'ai jamais parlé et mm-hmm. que voilà comme ni ko saako même sans que beaucoup les vidéo bi nga par rapport à ay avocat am waxul mm-hmm. donc boobu ba léegi déclaration peut-être dina def je sais pas conférence de presse peut-être d'une dina qui prononcé mais en tout cas baax nous l'air leeral lu bare bare bare parce que sénégalais ils ont en fait ce qu'ils veulent c'est juste comprendre hein tey les pour lépp teggi tuuma du setal am na nu ko olof yi di waxee. waaw teggi tuuma wa setal sa der la. Mhm. ah du ragal mais setal sa der la. Mhm. daf ci bax nga setal sa der aussi. Mhm. non saako sax la doon wax. pour mu pour mu dugg ma poser ko euh, quelques questions ci vie wu. Euh, ki nga xamanté euh, modi Lamine Diack euh, fofu nga xamante moo modi France mais eh, Lamine wax nga ko tey jii nii peut-être dina def point de presse mhm. pour expliquer ay zone d'ombre xam nga tay dossier bi lu bëri dafa échapper won journaliste sénégalais je suis d'accord avec ça quand il dit que ni peut-être dara bu xewoon ni journaliste dañ xam luy wax mais kérok bi ma bi voilà mais keroog ki nga xamanté modi modi moo di doomam Massata Diack bi mu toogee expliquer affaire du au fond tu comprends que les nids de am l'homme de te moom la de et que les sénégalais yi bu dee les yem rek ci média pour dire mhm. que famille abandonné mhm. et que sa famille dañ ko mhm. abandonné et que xam nga ni ñi ngi le jouer ci lu garaaw di di di wax ci di wu ci ci ay déclaration mon fils est un voyou ci es non mais c'est une famille la famille jack est en train de vivre lo xamanté des moments difficiles voilà c'est difficile et que dafa dépasser entendement Euh, sénégalais yi tey qu'on se base que ni tey dañ ko jàpp ci affaire corruption mhm. dañ ko jàpp ci ci ci ci ci ci yenn mbir yi mhm. nañu jàpp ni tey jii nii euh, Lamine Diack am na yeneen tubaab mhm. yoo xamante nekkoon nañ ci même histoire bii nii bu mu nekkoon te génn nañ ci Amener possibilité de ci alors pourquoi lui on lui donne pas la possibilité de s'en sortir man faut man la bëggoon ñu ñu ñu nous campé fa débat bi ñu ñu xamal ñu sénégalais que ni y a eu des autorités yu mag yoo xamante dañoo nekk ci domaine sport bi ont dund li Lamine Diak, dund et pourtant ils s'en ont sorti c'est toujours possible pour Lamine y a une solution pour permettre à Lamine Diak de sortir de ça absolument warna na am solution. Mhm. tout au bu fekkone suñu autorité impliqué né wu si mhm. si si sujet bi si ci ki bi. ci mhm. procès bi impliqué wu ci affaire bi comme il faut. ñu dem ci jusqu'au bout ànd ak mom comme ni ma ko waxé sank si c'était un français. mo nek Sénégal ñu téye ko fi bu démé ni ñibbi na dëkkam bu yàgg. d'accord Sakho. voilà man man foofu nonu foofu nonu lan mo koy waral parce que ñom dañoo am seen autorité yo xamante que ni seen i Mhm. même bu même bu génnee àdduna duñ ko bàyyi gannaaw. Mhm. ñu nag comme ni nga ko waxee sànq na fi deret deret bu ñuul moo moo moo moo moo déjà handicap la. Mhm. Lamine Diack ba muy nekk ci même ba muy nekk ci liggéeyam normal sax. da doon gêné tubaab yi. am na ñu bëri da leen doon gêné parce que dañuy naan mais pourquoi structure bu mag bii nii. nit ku ñuul du ko gêné parce xam nga ku weex. bi gën a bon mooy bi nga xamante ne dafa racisme bi bopp rek du la ko woon. Mm-hmm. te li muy def ci suuf bu la ko wonee bës bu la ko wonee sa àdduna tukki mm-hmm. dañ ko teel a préparé action yi ñu ko teg nii mm-hmm. dañ ko ko te dañ ko ko xoolal maanaam boo nekkoon ci boo nekkoon tribunal xam nga looy gis day mel ki yow yow yow Nafi fi ngay liggéey fi ngay liggéey ma ma fexe tout may xaar yow nga wàcc ma teg la loo xamante ne que ni beneen nit ku ñuul dootu fa toogaat Mm-hmm. effectivement yàgg na. loolu de est-ce que xam nga fi may waxee. Mm-hmm. maanaam dañ ko def pour beneen nit ku ñuul dootul am post bu mel nii. c'est que affaire bi dafa xóot tellement mm-hmm. boo koy wax yow sa wàll bopp de yow mi nekk nit ku ñuul sax da ngay bañ sa bopp xam nga li tax. maanaam lu ñu naan xoxatal dañuy xoxatal ñeneen. merci mooy message bi ñu bëggoon lancé. mais il fallait que. jeex na c'est-à-dire que ab euh, sànq mënuñu woon xam nga am na neen noo xamante boo ko waxee ci net bi rek. peut-être euh, nit ñi nit ñi duñu duñu am. ñu koy comprendre voilà avocat am nee na dañu bëgg servir euh, Lamine Diack de boucle hémisphère. Euh, voilà merci merci c'est pour beneen nit ku ñuul dootul am ndombol tànk bu mag. Mhm. parce que dañuy jàpp ne nit ku ñuul déjà mais mais mais mais c'est c'est c'est que man des fois des fois reetaan sax moo ma jàpp man procès bi. Mhm. dama gëmoon ne sama dañ koy libéré. effectivement Sakho xam fan laa bëgg nga ñëw fekk suñuy internet. wóor na yàlla billaahi. Lamine Diack fan la ko fan la ko nit ñu weex yi tegee foofu France parce que sànq yaa ngi koy wax tribunal parfois da ngay foog ne fii nit bu weex la ñuy la ñuy la la ñuy jugé fan fan lañ ko teg foofu noonu mhm. parce que ñoom côté bi côté bi ñuy côté bi ñu bi ñuy gën a insister mooy mhm. ñoom doom ji lañ gën a soxla effectivement mhm. dom ji Massata Massata Massata Massata Diack lañ gëna soxla ko Lamine euh, Père Lamine. Mhm. Massata Diack bu ñëwon tay tay tay man gën naa 5 ans manam 2 ans ñu ko teud ni sax du ko yow tay tu parles pas en tant que euh, auditeur euh, Wii Sport buy wax buy woté di di wax. Mhm. ma ngi jéggul en tant que tu parles en tant que en tant qu'une personne qui est proche de la famille mhm. Lamine Diack parce que. da am nga ak ñom relation yaa ngi dem sen sen kër yaa ngi Lamine Diack et tout. et qui a été au tribunal du début à la fin. Au, au tribunal du début à la fin donc tu as na ay affaires yoo xam ne nga ko Sénégalais mais man fi ma bëgg ñëw mooy Massata Diack son fils est-ce que tu crois pas que dafa waroon dem. Euh, dafa dem soutenir papam déjà parce que ton papa a 87 ans. nga bàyyi ko fii euh, nga bàyyi ko. nga ci est-ce que jàppoo ne dafa waroon dem soutenir papa même ak lu ko ciy munti fekk man dama koy xool si sama bopp ak ci keneen ak keneen sama papa buñ ko jàppoon euh, mhm. buñ ko téewoon foofu damay dem mhm. même buñ koy même buñ may rey foofu sax damay dem mais moom damay dem moom ñu libéré ko est-ce que jàppoo ne moom dafa waroon dem fekk ci papa nekk ci wetam foofu foofu dama la koy dama la koy gàttal nu mu dama la koy gàttal nu mu ko nu mu ko bëggee mhm. lu tax ma la koy gàttal boo dégloo su ma jumul Masada Masada Masada defoon na defoon na benn benn ben émission suma djumul juumul. nako voilà ñaar ñaari wax la la ci wax al amin tay yow. Mhm. ñaanu ma ko yàlla yàlla bu yalla bo dund lool mhm. mhm. tay al amin bu fekkone yow da nga da nga amone problème Italie. sa papa mi ngi ci bi problème yow yaangi ci problème yalla dogal yow problème bi ba japp sa papa yow yaangi won woon Sénégal. té nationalité sénégalais nga yore nationalité italien. benn nationalité nga yore mooy Sénégal légui yow japp biñu japp sa pap dem nga bañu woné la carrément japp bi ni dafa am leneen lu ci rax lu bokkul ak réellement mhm. li ñuy wax né moo koy loolu lañ koy topé manam magu yi la manam korib manam mbir la go xamantene ni pour ma gattal ko mhm. dañ ko tuumaal mhm. bëgg a deram bëgg a complètement dama ay laafam yow mu leer na la yow yow yow euh, al amin bo tegee sa tank Italie yow ak sa bàpp yépp ci kasso ñu léegi balaa ngaa ñàkk ñaar nga nga ñàkk benn moo gën mhm. Lamine euh, Père Lamine mhm. Masata bu ñëwoon dañ koy tëj ñoom ñaar ñëpp te bu boobaa dinañ leen virer maanaam seen alal lépp la ñuy nangu dañoo perewoon pour yàq yàq yàq paa bi complètement mhm. parce que buñ ko toppoon ci yoon buñ ko toppoon ci yoon waruñu top dara Lamine Diack parce que du moom moo yoroon structure bo manam mom exemple euh, mo jox pour auditeurs yi mën ko comprendre mi ngi melni mhm. euh, yow fi ngay liggéey xam nga yeen fi ngeen di liggéey normalement am ngeen médecin. Mhm. Mhm. am ngeen ko xamantene mo moo walu wàllu publicité. waaw am na ko xamantene mo moo yore affaire caméra bi am na koo xamante ne moo yore affaire euh, affaire nu mu euh appel ak yooyu. ku nek da nga am loo yor. ci gestion wu doomam nag ci lañ wax nekk corruption bi foofu la ne loolu laa bëgg nit ñi xam ko. Mm-hmm. mooy ma euh, côté marketing bi. côté marketing bi lañ ne parce que foofu rek lañ ko mën a jàppee. Mm-hmm. dëgg la foofu rek lañ ko mën voilà foofu lañ ne foofu moo am problème mais kon comme que côté doomam lañ amee problème mais est-ce que nag ci yoon normalement c'est vrai Lamine am na yoo xamante ne que ni yëgu ko woon. effectivement. Mm-hmm. man am na yoo xamante ne du ma la ko du wax fii la ba dem naa fexe naa de mhm. mm-hmm. na wax ak yow. Mm-hmm. en dehors de téléphone. te dinaa fexe tout def ko. d'accord amul problème en dehors de en bi. Mm-hmm. Mhm. question nga a laaj ko. mu mun la ci tontu man mun naa def loolu. te naa ko jéem amul benn problème du yomb nag parce que parce que buggul buggul wax ci média. bëggul waaw am comme man kay gis naa am na ay ah. euh, journaliste sénégalais yu ko doon interroger mhm. benn yoon ci benn mu ne leen carrément ah. depuis depuis que procès bi mu commencé ba léegi gisul leen ma ma prononcé wu ci waaw mhm. boobu ba léegi musuma cay wax am na ay journaliste parce que xamul lu muy mhm. xamul lu voilà xam nga lu mu doon bañ sénégalais yi dañuy dugg ci xeex boo xamante ne xamuñu xeex ba fu mu commencé ak fu mu jeexee est-ce que Massata Massata Massata Dia keroog ba mu waxee ba génneel la ay preuve génne ay kayit teg est-ce que am nga benn journaliste bu jug wax mhm. est-ce que am est-ce que à part ah, me ne émission boobu après émission boobu na beneen journaliste bu wax. Mhm. déedéet. ngi noonu. Mhm. kon boog balaa ñëw parce que keroog maa ngi déglu benn waay bi nekk euh, benn télé bu nekk foofu noonu. toog di wax mi ngi mel ni dafa fekke woon procès bi mi ngi mel ni histoire bi moom daf ko xam comme comme loxoom subhanallah. maa ngi toog di seetaan me ne mais ñii ñii ñii mais ñii ban genre nit lañu. Mhm. mais Lamine tontu tontuwul mhm. Masata wul ñi xam mbir mi deug deug tontu wuñu mhm. parce que xam nañ ni ñi liñu wax ak li am mi ngi melni asaman ak suuf liñ wara ñaan yalla ki man man li tax bugguma sax peut-être vendredi dina ci gëna sori dina ci gëna dugg sori ci mais limay ñaan yalla père Lamine mu dellu ay njab man tay dama doon xalat han ah, ñu ne ko am sa passeport xolal mu dagg bi ñi mérité wul en fait mérité wul à 87 ans mérité wul tayji ni ak li mhm. def euh, ci ci ci IAF. Mhm. def ko defal ko Sénégal en tout cas mérité wul en fait. voilà nii mérité wul. Mhm. defal ko monde entier defal ko monde entier Alamine defal ko monde entier. mérité wul monde entier tey jii boo IAM tey euh, ak euh, Jeux olympiques tey gars yi di ko xëccoo bëgg ku nekk bëgg ko mais mais mais Lamine Diack la. on on s'attendait à plus de clémence ci par juge mais comme li ñuy waxee rek comme ni ko Euh, Massata Diack la ñu soxla te fu mu ne nii tant que jotuñu ko euh, nii rek nii nii rek la ñu mënoon defee. Mhm. en fait nii mën a comme comme li ñuy wax rek boo bëggee jot nit dangay xool fii nga xam te moom moo fa la gën a sensibiliser nga nga jaaree ko fa tey xam nañ ni bu ñu ko téyee foofu noonu. Euh, population sénégalaise. doom bi dina wax koog ñu bañ ko wax dinañ réagir seetaan liir naa benn article Jeune Afrique yàgg na. buñ ko buñ ko defee. Mhm. yàgg na def depuis quelques années. ñuy expliquer mhm. ñuy expliquer. que ne euh, audition bu ñëk ba ci audition bu ñëk ba mhm. Lamine Diack dañ ko secoué pour mu wax mhm. pour mu mhm. wax que né dafa euh dafa jappalé Macky Sall en 2012 am xaliss bo xamné ne ñom ñom la ko jox man lire naa article bobu après dina leen ko yoni Jeune Afrique moko guenné pour pour pour expliquer un peu que né manam c'était une façon de lui mettre la pression pour mu pour pour mu pour mu dire moi wax loolu comprendre nga bon pareil wax ba paré euh, ñu wax que des fois c'est tout à fait normal parfois muy mhm. tout à fait normal parce que 87 mhm. ans donc mhm. euh, article Jeune Afrique comme ça après imprégné euh, mu en 2016. audition yi mu audition présent ñu bëri lu bëri dafa lëndëm ci mbir bi. Mhm. waaw waaw waaw waaw non d'accord naa côté boobu xam nga loolu tamit yaakaaru woon ne affaire parce que xam nga nit tam di nga nekk ci benn euh, liggéey. Mhm. am perfection boo xamante ne ni moo tax ma moo tax commencement bi li mu la doon wax ñii dañoo préparer li ñuy def ba pare xam nga ki préparer li muy def. Mhm. yow tey jii al amin yow xamoo man la laa lay préparer. bu fekkoon maa ngi préparer benn deal man ak euh, man ak Nafis ci sa kaw. ma xëy suba rek woo la woo la ba pare di la enquête di la laaj question nga may tontu fekk na yow préparé naa la wax ba pare. Mm-hmm. yow musoo yaakaar ni man ak ak naf yi dinañ la préparé coup boo xamante ni yow di nga ñëw dugg ci ko di nga ñëw dugg ci pax mi. Mm-hmm. parce que nit la koo xamante ne que ni affaire njublan nekku ci. Mm-hmm. te léppam kayit la woon. signature la ak li nga xamante ne mooy liggéeyam. xanaa bañ koy njëkkee annoncé ne Massata dafa affaire problème Russie bi ak tamit détournement l' argent yi ak kii euh, trois xaw ma ñaata mille affaire yu bari yeneen affaire yoo xamante ne buñ ko ko waxee. Mm-hmm. Mm-hmm. moom dafa ne li mënta nekk Massata fa la dugal alal ji. Mm-hmm. alal ji ñi koy wax nii nii nii bu ko Massata yoroon moom lan lay wut lan la ñuy liggéeyee ci ñoom. yaa ngi pour xamal la rek lim la wax ci commencement ba al amin. Mhm. c'est vrai bi neex na et puis la boo xamante ne que nii boo gisee auditeurs yi dugguñu ci mhm. gis nga nit noonu la loo xamul maanu ci maanu ci dëggantaan mere naa mere naa trop trop journaliste sénégalais ñu dugg ci histoire boo xamante ne xamuñu ko boppale di xëmbataat mais mais mais Sakho quand am na am na ci euh, yenn yenn journaliste yoo xamante tey jii nii Euh, mën nañu mën nañ leen kii peut-être yow joto leen euh, suivre ci biir mais mais mais maa ngi mais maa ngi woon tribunal man benn benn suma ma juumul benn benn kii laa fa gis suma juumul ah. benn benn nit laa fa gis boo xam ne euh, waaw moom laa fa gis mais mais mais saaxo du journaliste yëpp itam wala média yëpp ñu am possibilité envoyé seen reporter mu dem suivre yaa ngi comprendre ok mais Nafi Nafi d'accord naa mais waa mais mais am na journaliste yoo xamante tey jii nii fii nii am nañu mën nañ leen remercier mën nañ leen remercier ci suivre bi ñuy suivre procès bi parce que Lamine Diack kaay ma xamal dara il a eu d'excellentes relations ak ak journalistes yi tey boo ma waxoon que ni Lamine Diack journalistes yëpp yi mu amaloon relation lu tax gisuma ñëpp là je serais d'accord avec toi mais tey dafa am ay journalistes yoo xam ne sama Lamine yëpp loolu laa lay wax. waaw waaw xanaa xamoo tey. saa xam man li mu defal Sénégal bu ko Sénégal delloo woon. voilà. ah. Mhm. atte bi mun atte bi mun na yem mënoon na yem sax ci cinq ans yi parce que ñëpp loolu lañ jotoon. parce que ba ci mhm. dernier jour bi sept sept jours lañ fa def xaw ma presque une semaine presque. Mhm. këram la jógee dem fanaane ci hôtel. parce que hôtel bi ak ak bi sorewul. non je suis ah. je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait xam nga xam nga waxtaan dafa neex te tey euh, tey lii nii ñuy def nii. Euh, vidéo la boo xamante fait des j'aimerais bien que journaliste yi nga xamanté tay ji ni que ñoo nek ci collectif bi ñom ñoo à chaque fois bu ñu wax ci Lamine diak ñuy apporter des réponses précises yoy journalistes itam ñu baña sentir sen bop ci général euh, généralisation bi. non non non non non non non xam uniquement pour xamal sénégalais yi Lamine procès bu subaa nga déglu journal yi maa la ko wax tey vendredi dinaa la ci tontu bu subaa suba nga déglu nga déglu yeneen journaliste si ak yeneen euh, le suba euh, seen seen affaire u euh, revue de presse yi ñuy wax nga déglu. d'accord ba xam di nga ci génn loo xamante ne ni sa yaa ngi sant ne ñu ngi soutenir Lamine. Mm-hmm. te ñooñu di ci kenn koo xamante ne man mun naa ba fu may wax ak yow nii bu fekkee am nañ ay preuve yu leer ou ay maanaam ay sources yu leer. Mm-hmm. sources yi am li am. ñom parce que bañ na ko sax entourage Lamine euh, entourage père Lamine dañ ko sécuriser tellement que le baril du gain. lu bari du guen mhm. parce que procès la bo xamante ne que ni procès manam ki la quoi règlement de compte Facebook bi ku poser question bu am solo mu moi j'ai juste une question bay est-ce que le temps qu'il a été retenu en résidence surveillée va être déduit sur la peine des deux ans ferme annoncée non non pour savoir non non loolu xam nga. non parce que nekul nekul nekkul voilà nekul won détention donc résidence. maanaam mi ngi melni 7 sept ans lañ ko tej voilà mi ngi melni 7 ans. 5 ans sursis. 2 ans ferme. deux ans ferme ko. voilà loolu loolu lay. ma magata la ko kooku bu bëggé comprendre. mi ngi melni ni mi ngi melni ñu né la. mais mais depuis jour bi ñu ko jàppee. dafa am man loo xamante tam dafa lëmët sama xel. tay ji ni yow. comme par exemple nga né suba da ngay dem nga seeti ko. nga né suba da ngay dem nga seeti ko. alors que ñoom. Mhm. ci ci ci annonce bu nekkul suba nekk samedi quoi. voilà bu nekkul suba nekk mais comment se fait-il que bu nekkul suba nekk samedi alors que ñoom ñu ne deux ans ferme. Mhm. est-ce que est-ce que euh, emprisonnement. non def nañu recours dafay immédiat wala dañuy xaar recours bi recours bi jàll. voilà da ngay xaar ba recours bi jàll. ok yoo xanaa yoo xanaa xam nga affaire justice nag. Mhm. la moo tax recours bi am ma juriste nag moo tax. recours muy rëcc. <laughs> looloo tax mais bu ñu boo defee recours. boo defee recours. ba léegi sa liberté condition bi day continuer. ok. da nga gisoo loolu tax mu génn trio bu bu fekkoon dañ koy jàpp ca saasa foofu noonu du génn sax ci cour bi. ok mm-hmm. Mm-hmm. boo xoolee vidéo yi gis nga ko foofu mu mu sol yére bu weex génn. Mm-hmm. très calme serein. day dem këram avocat yi dem. voilà. merci des fois sax mun nañ la mun nañ la tëj ba pare ne la yow yow yaay seet jour bi ngay dem kaso. am na ñoo xamante leen ni cëralee loolu France. mais kii def na recours recours bi da koy permettre mu dem toog këram. parce que jugement bi jeexagul parce que yow dañoo jugé ba pare yow benn parti bi ne nanguma benn bi ne nangu mhm. léegi jugement bi day delluwaat day ñëwaat léegi bu ñëwaatee am na am na fu ñu toll bu ko xoolee mën na soi-disant que mun nañ delluwaat ci verdict bi même verdict. Mhm. ah comme si mën nañ ko ne kon de bi pa am nañ ay yenn assez de preuve yoo xamante ne que ni. Mhm. voilà am nañ assez preuve yoo xamante non dama lay wax ñett ñetti cas yu yu bokkul. mun nañu wax ne am na assez de preuves yoo xamante ne que ni may na ko ñu war ko bàyyi liberté mm-hmm. troisième bi mooy a ah, am na beneen preuve bu ñu am bu gën a garaaw boo xamante ne amuñu ko woon ci premier jugement bi mm-hmm. kon dañuy gën a yokk penam mooy mooy mooy mooy forme de pression bi moo tax recours voilà moo tax merci moo tax recours bi noonu la garaawee Massata Massata ñu bëri ngi wax dafa war a ñëw soutenir papam affaire soutenir de xam nga kan ngay soutenir koo xamante ne leer na la boo ñëwee day am Mm-hmm. boo boo ñëwee day am équitable maanaam dañ koy yamale nit ku weex ak nit ku ñun lu leen di jugé noonu lañ koy def France du ma ne amul jugement de. Mm-hmm. mais bii moom am na procès yu bëri yoo xam ne am pression boo xoolee procès euh, Sarkozy. Mm-hmm. la moo tax tijjiguñ Sarkozy ba léegi te flagrant lañ jàpp Sarkozy ci ak ki euh, kii xadafe bi ñi mu xaalis bi fu mu jaaroon ak yooyu yëpp. pour xamal la rek daa am ponkal yoo xamante ne kenn du leen laal. Lamine Diack ci ñooñu la waroon a bokk. ci kaw bu fekkoon ne suñu peuple jàppale nañ ko suñu njiit yi jàppale nañ ko homme maanaam mais lan la kii lan lay njëriñ nu mu tudd euh, lan la ñuy waxati sax mm-hmm. euh, nu mu tudd euh, jàppale mu waay affaire état yi nan lañ koy waxee waay. affaire état yan. diplomatie diplomatie lan lay lan lay njëriñ. Mm-hmm. Mm-hmm. lan lay njëriñ. bu jëloon xar tànkam xoolal ne cinq ans yi nii. foog mu jéem a jàppale sa waay. affaire bi am na fu muy jaar mais dañ koy jàppale. man mm. mm-hmm. je pense que ni c'est un sujet boo xamante tôt ou tard dina ci réagir tôt ou tard dina wax ni soit lii moo taxoon man ma noppi wala lii li lii ni moo taxoon c'est un sujet boo xamante du lenn du lenn journaliste sénégalais yi la parce que du lenn na fi xam nga lan la moo mm. la ko tey nga dégg ko mm-hmm. journaliste sénégalais la moo tax ma ne la dañoo jël taal mi xëpp xëpp ci matt mu tàkk parce que ba affaire bi ne tëll lan la njëkk a wax campagne yu Macky Sall campagne yu 2012 Lamine Diack moo ko def moo ko moo ko def moo ko kii moo ko kii nu mu tudd moo ko financé loolu nga loolu la ñu waxoon n'est-ce pas. waaw mhm. finalement dañ ko mujjee yóbbu ci arène bu mu bokk. dañ ko yóbbu ci arène politique mhm. la journaliste yi des mhm. woon man procès bi dara dara dara man nu mu tudd. bañ ko jàppee léegi li ci xew yëpp li ci yëpp xam naa ko. léegi nag Macky Sall loolu lay daw. Mm-hmm. Mm-hmm. Macky Sall loolu lay daw. Mm-hmm. bon euh, am na amul. dëgg la du dëgg. lam leen di xamal ñetti yëf mooy. poli euh, kii bi nu mu tudd procès bi. procès la boo xamante ne que ni règlement de compte la entre Lamine Diack parce que dafa ànd ak ki nga xamante ne mooy Poutine. xaritam la ànd jàmmam la. am na loo xam ne dama la koy dee sax tey xanaa xamoo am na avocat bu fa nekk koo xamante ne Poutine Poutine mi ngi koy soutenir Poutine mi te waxu ko. mu mhm. mhm. ngi koy soutenir te waxu ko. maanaam soutien bi mu am ci Poutine. même français xam nañ loolu. su soutien bi mu am ci Poutine. ko sax ci état du Sénégal. amu ko li mu am ci Poutine amu ko sax ci ci état wu Sénégal. d'accord état wu Sénégal pare man dama ko sentirul ci benn benn benn man boo xaw ma xaw ma mën na am te ma yëguma ko de. mais sentiruma ko ci benn côté te dinaa ci gën a waxtaane ku ko jege te dina ma jox lu bari ma expliqué la pour àdduna bi xam ne dañoo seetaan doomu Sénégal français yi jël ko bu ko toroxal te ci yoon boobu lañ nekk ci koo xamante ne que ni âge maytu ko sax mu fanaan benn guddi biir kaso. d'accord d'accord jërëjëf Sakho ñu ma tëjee ko ci benn ma tëjee ko ci benn affaire rek. Mhm. Mhm. Masata affaire bi boo leen ko bëggee yóbbu ci Masata rek yéen a ngi may tubaab bi liñ bëgg. Mhm. Masata man góom man ba ba fu may wax ak yow nii bëgguma sax mu teg tànkam France. Mhm. parce que bu fi ñëwee lu ñu jot a sacrifié papam rek lu ko gën a garaaw lañ koy sacrifié moom. Mhm. xam nga ñu ngi koy laaj un million d'euro un la ko Masata jëlee. Mhm. six cent cinquante huit millions de francs CFA. nga fan la ko jëlee. Ah? bu ko joxee xanaa xanaa fa ay njabootam dootuñu dund fan la koy jëlee. Mm. déjà déjà Lamine Lamine bloqué nañ ay comptam def nañ lépp. lan lañ bëggati àndi na ay preuve ngeen ne du am na li ngeen ci jël am na loolu ci jël di ma génneel ay ay gis nga tribunal dafa affaire dafa mel ni sax théâtre dafa mel ni ay ay film la mhm. di génne ay ay ay email di génne ay message ah di génne ay téléphone non non tubaab tubaab baaxul mhm. billaahi ku wax tubaab baax naa da ka kaa xamul <laughs> ku mun moytu tubaab moytu ko <laughs> ku ko mun moytu rek moytu ko mhm. ñu bon lañu billaahi ñii

Mm-hmm. ak li am mu ngi mel ni Angleterre ak Pompiteer. non yow da ngay wuti autorisation bi après Wii Sport topp topp topp dossier boobu incha allah amul problème. man moom naa naa waxtaan ak moom. maa ngi jox rek maa ngi xaar sa maa ngi xaar sa pourtant am na xamante ne wii ma wii ma léegi wii ma ma wii ma. waaw mm-hmm. am na koo xamante ne que ni dinaa ko woo. Mm-hmm. dinaa ko woo mi ngi Sénégal. kooku procès bi. amul lu mu xoolal kooku histoire bi lépp la xam dinaa ko woo waxtaan ak moom bu la mayee intervenir bu la mayee pour nga mën a ñëw nga dem toog kooku lu mu la wax rek takkutee amul problème incha allah kooku lu mu la wax mhm. ku lu mu wax laa wax de ah mhm. takkutee ndax kooku noonu boo xoolee sax ci vidéo yi ah mhm. saaku Lamine Diack moom moo ko téye d'accord confident Lamine Diack la cent pour cent mi ngi Sénégal d'accord sama oto bi ma bi ma la wax ne moom moom laay bëgg a jaay nii sax ci kooku moo ko yor d'accord naa la envoyé naa waxtaan ak moom bu nangoo ma jox la numéro am. incha allah ah. mhm. nga jël rendez-vous nga dem toog ak moom lu mu la wax takkute ko woo léegi léegi léegi lu mu ma ci wax naa la ko wax. d'accord amul benn problème incha allah. di wax auditeurs yi nag ñi nga xamante ne que tey xam naa liñ def nii la. Mhm. xamuñu ci histoire bi lu bari moo tax dugguñu. Mhm. am nañ ci compréhensive mais li lim leen di ñaan mooy ngeen toog ñaan. parce que Lamine Diack mérito wu lii. lim leen ci wax rek mooy règlement de compte la. te tubaab bu jugee pour régal pour def règlement de compte ak yow mi ngi mel ni Gbagbo ak ki nga xamante ne mooy Alassane Ouattara dañuy réussir seen règlement de compte parce que africain yëpp ay toog di ko seetaan nit ku ñuul handicap la. Mm-hmm. il faut que ñu booloo nekk benn di jàppale suñu njiit yu mag yi lu am ñu génn xëpp ci kaan ne waruta am les sénégalais bu ñu génnoon def marche trois fois quatre fois cinq fois français dinañu reculer ou bien français bu ñu jàppati Sénégal dañ ñu yóbbu waxuma laa dañ ko ko yóbbu Kédougou c'est ça.

faut de mujjé ki gëtam di recours bi di xam décision finale en tout cas lan lay doon euh, par rapport au procès bi mais ñuy fatali que pour le moment il est condamné à 4 ans de prison euh, dont 2 ans ferme 2 ans sursis ak euh, euh amende 500 000 euros mu nek 328 trois cent vingt trois trois cent vingt trois millions de francs CFA donc mu nekk loo somme boo xam ne en tout cas ci côté yooyu lay lay lay la nekk. Mm-hmm. sans compter aussi Massata Diack bi nga xam ne c'est son fils donc ñu jox ko amende un million d'euros ak cinq ans de prison donc pour ñu xaar appel bi. xool dossier bi fan lay mujj mais aussi comme ni ko Sakho waxee bu ñu opportunité indi len yenen éclaircissement aussi ñu def ko inshallah on remercie Canal Plus qui a accompagné euh, l'émission Canal Plus qui est en promo jusqu'à la fin du mois de septembre décodeur à partir de 1000 francs ngeen jënd abonné wu. Euh, mën a seetaan euh, championnat yu ci mel ni Ligue 1 Série A Bundesliga Premier League waaye itam li nga xam te moo di La Liga di fàttali ni itam li nga xamante moo di Bundesliga moom mooy euh, lu bees parce que dafa ñëwaat euh, saison bi ci li nga xamante euh, moo di Canal Plus alors daw leen foofu ngeen abonné wu parce que décodeur bi ba tey 1000 francs la jar Diop tàggatool d'accord di jox internet di rendez-vous demain incha allah donc ci beneen thème ak beneen émission wax sa xalaat mm-hmm. on revient demain à partir de 16h incha Alors que la Ligue 1 est déjà lancée, vertige, le vertige La Première Ligue, la Serie A et la Liga s'apprêtent déjà à faire leur grand retour. On sent qu'on est sur un, sur un volcan. Et cerise sur le gâteau, à partir de cette année, le Bayern, champion d'Europe, rejoint ce casting de rêve avec l'arrivée de la Bundesliga. Un cadeau incroyable wow, Absolument somptueux XXL. Du talent, du talent fou. Les plus grandes stars, les plus grandes équipes, les plus grands matchs sont tous sur les chaînes Canal Plus Sport.